ñu ngi lay nuyu El bu Bou la yow yaay président régional opérateur yu euh, nekk ca Kaolack muy zone centre tey ji euh, ñu waxtaanee li nga xam ne mooy mbay mi ak euh, nawet bi nga xam ne door na depuis mois de juin sax gis nañ taw bi tey ñu wax ci semence yi ndax distribuer nañ ko ba pare sax ndax jot ngeen ci. li ñu wax rek ku ne campagne agricole bala ngay wax campagne agricole wax campagne campagne de commercialisation mhm. ci loolu ci opérateur yi collecté li nga xamante ne mooy jiwu bi mhm. euh, ba denc ko ci magasin bi yàlla def ñu agréé ñu agréé leen bi leen agréé notifié leen euh, seen i poids ci biir notification boobu nag yàlla def ministère teel cee jël ay matuwaay teel koo génne mhm. bon bi <clears throat> ñu notifié ba pare après ci lañ à partir de mois de euh, si je ne me partir de mois de avril lañ joxe daanaka notification mois de euh, euh, mai fekk na déjà euh, planning yi génn ba nga xam ne si ne opérateur yi déjà commencé woon nañ def am mise en place mhm. bon ñu ciy félicité plus particulièrement le département de Gandiaye nga xam ne si vraiment ñoom ñu teel a jëpp ay disposition lañ di teel a préparer seen commission yi pour que vraiment distribution yi mooy bu nga xam ne bu opérateur yi ñëwee ci ci département bi bu ñëwee indi seen i seen i seen i poids ñu mën koo teel a euh, teel a bon loolu nag yàlla def na vraiment que au niveau de la région euh, euh, de Kaolack li nga xam ne si ne moo waroon ci wàllu gerte ci wàllu céréales yaakaar naa ne opérateur yóbbu nañu lépp tey boo demoon ci tool yi nga gis ne vraiment li ngeen notifié woon yóbbu yóbbu nañ ko non seulement yóbbu nañ ko qualité la boole ci parce que tool yi déjà yëpp sax nañ kon donc di ci félicité opérateur di ci félicité aussi état par rapport ak matuwaay yi nga xam ne si ne jël nañ ko ba nga xam ne ne Euh, béykat yi mën a jot seen gerte à temps mën a jot seen intrant à temps. Euh, tey jii ci distribution semence yi gannaaw ba nga ba ñu defalee benn évaluation ci li nga xam ne mooy campagne bi euh, tey distribution bi dégg nañ ne yenn opérateurs yi ak ñi nga xam ne ñooy agriculteurs yi bokk leen ci benn wax ndax bu ñu jëlee zone bu Thiès opérateurs yi ñoom jamono ji ñoo nga ca waaye nag ñi nga xam ne ñooy baykat yu nekk ci nga paru ñoom nee nañ dafa am benn déficit ci wàllum joxe semence yi. ndax loolu nemmeeku nañ ko. ca Kaolack am nga nag déficit moom mun naa wax ne parce que boo xoolee li ñu bay. Mhm. ak production bi ñu am au niveau national état nag mënut ta matale lépp. Mhm. parce que dara dalu même au niveau de euh, loolu ñuy jàmbat noonu mën nañu wax ne jàmbat bi c'est au niveau national. parce que mhm. état dafa am lu muy jël joxe ko mais yow sa wàllu bopp aussi dafa am looy. sàgganiku aussi. Mhm. parce que du jël nit di jël lépp rek wékk ko ci euh, état. Mhm. maanaam état mënut a lépp. tey boo xoolee production bi euh, production bi ñu am au niveau national. Mhm. ça tourne aux alentours de cinq millions un million et quelques. mais état li ñu ciy joxe soixante quinze mille tonnes la sur les soixante quinze mille tonnes y' a soixante mille tonnes certifiées. Euh, nekk at euh, quinze mille tonnes yoo xam ne écrémé la mhm. mais li ci def nag production boobu noonu loolu état di jote mataliwul production bi li ci def euh, muy baykat bi muy muy keneen aussi ku munti doon yow yaay mu di mottali que mais nee nañ sax semence bi ça laisse à désirer maanaam qualité bi demeewul noonu waaw loolu borom gémmiñ ñuy naaj moom koo gis ku ne du wax du wax jàmm parce que tamit bu ñu nee qualité bi demeewul noonu yow demal ci sur place nga vérifié boo vérifié nawet bi fi nekk nii dox na man léegi tey sa matin rek maa ngi zone boobu ngay wax noonu maa ngi woo waa Tataguine mhm. bi ngay wax nee nañ ma nawet bi doon vérifié ndax taw bi ndax taw bi maase na yaa mhm. ñu ne ma vraiment torkala taw bi mu ngi taw régulièrement gerte bi sax na mhm. parce que foofu zone boobu man joxe naa ba gerte doon vérifié vraiment ndax gerte bi ñuy sax normal yëpp mais ils ont tous apprécié mais nit nag nit moom bu fekkee ne day wax day wax loo xam ne si ne vraiment euh, safaan la moom yow sa bopp boo demee wa mun nga dem jëriñ xool ba xam ndax gerte bi ñuy wax ndax sax na wala saxul mais nag matale moom lépp moom état moom mun nga matale lépp parce que nit ki boo amee objectif def dix état defal la xam nga ne yow da ko def bu fekkee ne da nga ko da nga ko war a da ko bëgg def yaa ko war a montali sa bopp. Mhm. moom comme li ma lay wax rek li ñuy bay li ñuy bay au niveau national. Mhm. ëpp na li état di joxe. production bi ñu am ëpp na li état di joxe. boo demee man nit te boo demee GAFA maa fa presque lu toll soixante hectares yoo xamante ne. Mhm. tey li lañ ko def li gerte lañ ko def mais état la ma la la la état di joxe loolu rek la am droit mais leneen li mën naa koy defal sama bopp. tey boo demee au niveau de GAFA am na ay producteurs yoo xamante ne jox naa leen gerte. Mhm. état jox na lépp mais damaa contractualisé ak ñoom jox leen gerte nga dem ci ba soor def naa ko. et justement tey jii mu doon benn benn initiative individuelle bi nga xam ne yaa ngi koy jël nan la ñu mën a def pour gën ko organiser ndax war nañu yéen ñiy béykat yi ak opérateurs yi ndax waru leen gën a mën a organiser secteur bi de telle sorte que dootu leen dépendre ci li nga xam ne mooy état ci wàllum semence. waaw loolu loolu ñu ngi dox parce que xam nga ku ci maanaam man damay wax ne rek contrat gagnant gagnant la war a doon. Mm. ba nga xamante ne tey état dana taxaw pële ñu def lu encadré ñu. parce que tey quelque fois alba euh, tey ñun ñu fekk ne contractualisation boobu ça date pas d'aujourd'hui depuis mm. depuis mille neuf cent quatre vingt neuf li ñu créé fédération bi euh, au temps de Sonatrach euh, tey coopéra contractualisation bi da daan am. Mm-hmm. mais na ci li ci li ci war toujours day am ay ay manquement manquement yi ci am na noonu lañ war a toog waxtaane mais ba nga xam ne ci ne dañ ko sànn ba nga xam ne baykat bi dana ci gis boppam producteur euh, opérateur bi ci ne day joxe jiwoo euh, joxe engrais dana dana dana recouvrer wu dana recouvrer xaalis parce que opérateur bi xaalis bi ñu jël moomu ko hmm. ci banque bi lay dem il la di dañ contractualiser ak baykat bi jox ko engrais jox ko jiw donc béykat bu ko fay bu retourné wul day am problème kon donc loolu il faut ñu encadrer ko ba nga xam ne si ne tey béykat bi dana mën a fay te bu jaay jotee mu dem jaay opérateur bi bañ ko jox ki nga xam ne si ne da koy yóbbu à l'étranger parce que production bi ñu def nii di ko jël di ko joxe ba noppi wëlbatiku béykat bi di xool prix bi nga xam ne si ne moo gën neex dem jaayi ko dem jaayi ko étranger bi étranger bi xoolul na ni jiw la xoolul na ni écrémé la xoolul na ni huile la dem day moom benn nañ ko jox gerte rek ñu jël def ko vraiment ñu ci am dara lu mu ci bàyyi xam en retour loolu tamit dafa xaw doy wax mhm. parce que xaalis bi nga xam ne si ne état da koy subventionné euh, c'est l'argent des Sénégalais comme donc ci exportateur bi yóbbu war na yóbbu loo xam ne war na yóbbu bàyyi fii loo xam ne si ne dañ ko delloowaat ci mbay mi kon donc ñu ngi ci organisation boobu ngay wax ñu ngi ñu ngi ci ñu ngi fexe ba nga xam ne si ne producteur bi tey bu bayee mhm. dana mën a am deux à trois tonnes à l'hectare te gerte googu du ngi fi saaru gerte googu te ay cycle court la gerte googu mu ngi fi au niveau de ISRA nañ dooleel ISRA ISRA génne gerte bi nga xam ne si ne tey boo ko bayee mën ci am deux tonnes wala trois tonnes à l'hectare béykat bi bu ko bayee bu un bi am huit cent euh, cent kilos bi muy am maintenant mun deux tonnes à trois tonnes loolu mun na am. mbaa foog ngeen ne Sénégal sax tey jii war na mën a encadrer mbay mi ba dootul jéggaane euh, bitim réew. comme autosuffisance gi ñuy wax ndax Sénégal am na les moyen tey pour def ko. mais volonté la rek. am loo dégg par volonté. waaw volonté cest à tey doole yi nga xam ne tey bu ko fekkoon ne jox na ko filière bi. Mhm. muy ci wàllu euh, ci wàllu euh, culture de rente bi. muy ci wàllu maraîcher bi. muy ci wàllu. Euh, bay ceeb bi li nga xam ne si ne tey lañ ko war a def def nañ ko tey boo xoolee ISRA wax ISRA mu mhm. yegg soixante variété de graines yoo xam ne si ne mi ngi mi ngi door mi ngi te variété bu ci nekk variété yoo xam ne si ne ISRA ñoo chercheurs yi ñoo ko créé te buñ leen doole la ba te variété yooyu c'est des variétés yoo xam ne si ne day répondre norme climatique bi nga xam ne si ne moo nekk tey parce que la woon démb ak tey bokkul. kon da nga jàpp ne secteur bi daal dañ koo néewal. des na lañ ko war a def vraiment des na ñu ngi def nag mais lañ ko war a def des na parce que au niveau au niveau euh, ñu ngi jàppale béykat yi mais war ñu jàppale bi dëgg mooy fexe ba béykat bi bu béyee am rendement bu baax man foofu laa gisee parce que tey béykat bi li muy béy nii tey bu ko bayee ay rendement ay bu bëree ba pare une tonne béykat bi mën na am deux tonnes à trois tonnes à l'hectare te nekk tey boo Mali. nga dem Mali tey di jëndi mboq tey producteurs yi malien bi mboq bi ñu la mën a jaayee kilo soixante quinze quatre vingt franc wala quatre vingt cinq sénégalais bi mënu la ko jaayee parce que lu ko waral parce que rendement ba muy am ñaam ci hectare am sénégalais bi di ko am. Mhm. Euh, monsieur Goumbala. ji mbay mi loolu noonu. Uh-huh. kon donc loolu noonu war na mën a nekk ci béykatu Sénégal mën na war na nekk ci. Eh, ci producteur u Sénégal secteur agriculture euh, gis nañ ne dafa bëri coow lool Moustapha Cissé Lo dégg nañ ko ci nee na mbay mi ñoo ca nekk dafa am ñu leen rax li jëm si gerte gi sax rawatina ak semence yi dañ koy jox ñi nga xam ne yelloo ñu ko yéen lan ngeen ci gis yéen ñi ci biir. waaw xam nga maanaam bu ñu nee dañ koy jox euh, joxe moom vraiment parce que bu ñu déggee joxe rek day mel ne état dafa yëkkati lu mat mille Euh, engrais wala deux mille tonnes ñebe jox ko ba jox ko produit jox ko jox ko opérateur bi wala mu jox ko koo xam ne mais mën na bañ doon opérateur bi mu doon ki nga xam ne. waaw loolu loolu laay loolu laay expliqué. Uh-huh. loolu laay expliqué moom laa lay wax nee naa la tey état li muy def tey ci wàllu semence tey buñ lay bala ñu lay jox d' abord Euh, notification dafa mm-hmm. am processus bu fekkee ne notification lañ lay jox processus bi wax naa la nee naa la day déjà da def ay déclaration de culture mm-hmm. ay service technique yi suivre la euh, muy SDDR yi ak DDR suivre la xam ne yow da nga contractualiser ay béykat yi dañ def seen ay estimation wane ne war nga mën a am war nga mun a béy tant de tonnes war nga mën a produire tant de tonnes mm-hmm. à partir de ce euh, processus là ci lañ leen notifier yaa nag des écrémés ne si ne gis ne tey Euh, tey kat euh, Ibrahima Dieng mais jënd na gerteem am na stockam service technique yi dem nañ xool ko ñu notifié ko loolu mën na am mais ci biir loolu du loo xamante ne état da la ko jox parce que yow bu la koy notifié yu yaay def yaay def say démarche ba dem ci banque yi eh, eh, hypothéquer say bien ci banque bi banque bi jox la xaalis ñu mën a jënd gerte kooku du loo xamante ne lu état di jox la bu dee engrais la da lay jox rek këyit gi nga wane ne yow tey état notifié na la nee la tey dama bëgg nga jox ko deux mille tonnes mais deux mille yooyu état du la jox xaalis état du la jox deux mille engrais yooyu yaay def say pexe dem au niveau des banques lever fa ay fonds dem jëndi ko au niveau des ICS yóbbu ko fi la état wax nga doog a facturer nag pour fay. kon daal ku nekk bu ma la déggee ngay wax ku nekk euh, ki nga xam ne am na mbébét yëngu ci wax na cee mën a dugg même si boo ci doonul ak. tout un sénégalais tout un sénégalais bu ci bëgg a dugg remplir li nga xam ne si ne moom la ñuy wax nga am sa linéa am sa registre de commerce. Euh, nekk euh, di di di nekk un sénégalais bugg ci dugg boo bindee sa notifié boo bindee sa boo bindee sa agrément mën nga ci dugg. kon yow jàpp nga ne waxu Cissé Lo bi daal amul lenn lu bees ci mbir mi. non c'est-à-dire yow tey yow tey Elisabeth yow tey boo bëggoon nekk opérateur. Mhm. da ngay bind wane da ngay bind dixième dixième agréé la wane na yow mën nga nekk mën nga nekk semence bi. ci kaw loolu nga dem au niveau de ISRA jënd fa ay pré-base wala nga gis koo xamante ne opérateur semence la mu jaay la pré nga dem def say déclaration de culture. Mhm. boo bëggee nekk opérateur euh, intrant da ngay bind état ministère de l' agriculture mu mu agréé la nga remplir nag les conditions parce que dañuy euh, euh, dañuy def benn genre DRP am na ay con am na ay clause ñu yoo xam ne da koy remplir boo ko remplir bu état estimé ne yow war nga ko mën a def mais mu ñu agréé la mais ñu koy jox c' est des pas des nigériens ou des ghanéens mm-hmm. ay sénégalais lañ koy nañ koy defee na ku ci nekk. ñun la agréé da nga war a def parce que am na ay services technique yoo xam ne si ne ñoo nekk ci commission yi. d' di koy di ndax gerte gi indi commission yi c' est des commissions autonomes yoo xam ne si ne euh, c' est des commissions yoo xam ne si ne euh, xam ne préfet wala sous préfet bi moo koy moo koy créer ñu nekk ñoo xam ne si ne c' est des lu ci ñëw muy engrais di gerte lu ci ñëw lu nekk Mhm. dañ koy saytu ba pare doo ko xam ne lii baax na ñu doo koy dugal ci magasin après ñu doo ko def distribution yi. El Hadj Bou Goumbala maa ngi lay euh, jaajëfal bu baax a baax. ñu ngi sant sant di gërëm di wax ne vraiment filière bi. Uh-huh. filière la boo xam ne dina war na perte am na ay jafe-jafe. mais loolu lépp dañ ko war a toog waxtaane ko xool li ci li nga xam ne si ne baaxu ci. Uh-huh. ñu dindi ko. fexe ko defar pour le bien des Sénégalais et pour le bien du Sénégal. loo ci namm noonu assise wala. ah loo ci namm assise wala. ay waaw loolu mën na doon assise mën nañ ko tuddee assise parce que tamit euh, am na jafe-jafe assise bi mooy waxtaanee rek. Mhm. mooy li ñuy waxtaanee xool li nga xam ne am na jafe-jafe parce que boo xoolee Elisabeth. Mhm. gerte gi ñuy ji nii. Hmm, gerte gi dina am le vingt huit deux cent six. ah mille neuf cent vingt huit lañ ko créé woon. cinquante cinq quatre cent trente sept bi muy fure bi gerte fure boobu ah, on a créé en mil neuf cent cinquante cinq soixante treize trente trois bi muy gerte SMA bi en mille neuf cent soixante treize dañ ko créé boo jëlee moyenne d'âge boobu gerte googu la gën a béy moom la Sénégalais yi gën a xam mais am na yeneen gerte yu ko gën boo jëlee moyenne d'âge boobu gerte gi ça fait quatre vingt dix ans moyenne d'âge d'accord lu léegi jamono yooyu muy taw suuf si doon dund suuf si day tey taw bi wàññeeku na suuf si tey dee na gerte gi aussi rendement ba mu doon am amati ko kon donc loolu war nañ ko saytuwaat toogaat waxtaane ko. <laughs> am déet. Uh-huh, dëgg ko toogee waxtaan xool ñi nga xam ne si ne vraiment ñu ngi nekk ci filière yi di di remplir les conditions ñoo ñu teg leen ci kanam taxe baykat bi nu mu jariñoo opérateur bi jariñu huiliers yi nekk fii jariñu parce que huiliers yi suñu doom ñoo ciy liggéey su suñuy jarbaat ñoo ciy liggéey ay sénégalais ñoo fa ne. unions yooyu may wax noonu tey eh, boo demee tey au niveau eh, campagne bi passé CAT mhm. ubbiwul West Africa wal ubbiwul ko woon COPEOL ubbiwul Sonacos bi ubbi nga xam ne waroon na jël au moins lu néew ne au niveau national cent cinquante mille à deux cent mille tonnes mhm. trente mille tonnes la jël au niveau national. problème waaw jërëjëf El Hadj bu Goumbala